Discover the smiling coast of Africa. Hmm? Sorry, man. Uh, cross. Why? waaw waaw asalaamaaleykum suñ mbokk yi nga xam ne yéen a ñoo seetaan fii ci Gambia radio and television services gannaaw bu ñu sante yàlla ci sanga-sangay di Seydina Mohamed salallahu alayhi wa sallam dañoo sant suñu ñaari waaji waaye saas nekk dañoo sant suñu wasila ci barkeem yokkaleeram waaye saas nekk suñ fa jógee dinañ bëggee ci gannaaw fan gu guddaa wér gu yaram guñ mën a yóbboo rek suñu réew mi ci kaw ca kanam waaye buñ fa jógee dinañ ci lopitaan bi yàlla may leen wér bañ delluwaat seen njaboot waaye ñi nga xam ne ñoo ñu féete foofu ca barsax ñu ñaan ki nga xam ne mooy buur bi yàlla mu wàccee li nga xam ne mooy xol yërmande seen ko suuf seddee leen fañ tëdd waaye ñu ni tamit ñu ni ko dee faral di waxee bakku bi benn rek la yéen da ngeen ko yëngal seen biir kër ñu ni tam ñu di ko yëngal fii ci jiyaatee su ko defee rek Gambia dem ca kanam waaye ni maa def rek saas waxtu ni su ko defee ngeen call ci 437 3905 bi te yéen ñu nekk bitim réew ngeen dal di koore ci 00220 437 3910 waaye ni ma dee faral di wax rek gis ngeen tey suma boppa bi dal gis suma makeup bi ngeen xam ne waa Sambène Coiffure ñoo fa jaar ko nga xam ne mooy yéey sa jawara Samba ak xale mi nekk foofu noonu ca Atlantic Road waaye nag saa su nekk soo leen gisee bi tey nag ngeen xam télévision Badara nekk foofu noonu ca Fijara ak Allen Street Badara su nekkee yaa ngi seetaan kontaan naa lool si ñaw bi di la bëggee saa su nekk di la wax ne rek ne yéen la sa jaama yaaga waaye ni maa def rek mooy ne damaa àndaa yéen dugg ci biir waañ bi suñ fi del see rek ñu dal di ubbi bi waañ si seen xarit la maam Dieng ne la ñu dem seetaan li nga xam ne tey moom laa leen fi indil xam ne yéen a ñoo seetaan ci Gambia Radio and Television Services seen programme ba ko bi ni ma ko dee faral di waxee rek saa su nekk rek foog rek ñu ñëw ci ki nga xam ni mooy mu ndaw mu wonaan ñu tey beneen façon ñu tooga boo xam ne nii ñi di ngeen ci jàngee lu bari mu ndaw waa Bakku baa ngi laa nuyu. <laughs> maam Dieng salaamualeykum. Uh-huh. maa ngi nuyu suma mbokki jigéen ñi. di leen santa uh-huh. te woon leen ne jërëjëf jëf. Uh-huh. si suma teewaay toujours laaj ma lu tax demuloo télé lu tax demuloo télé. ban nga ñoo toogal tey nag maam Dieng maa ngi leen di woon toogee Chinese yi tey. Chinese yi daal tey boobu nga ñu boobu reeri Chinese laa nekka moo tax ñu ne kenn bu kenn dem restaurant. déedéet waaw lan dem ci Chinese loolu ban façon ñu tooga la. soo déggee maam ñu Chinese spaghetti moo tax. because loolu lekki la. waaw ba pare sipa sipa. sipa mu ngi ca. waaw mhm. da ko see def. ak ba pare ganaar gi tam. daf see dem. waaw nit ñi nañ jaaxle nañ ne sipa sipa ak ganaar waaye nag Chinese yi dañ koy def waaw. ba pare dinga am liñoom boo si def. moom ak lan lan la. liñoom bi am na suite pépé. Mhm. am na jaba jambu am na liñoom bu tubaab bi rek. ba pare am na mix vegetable. maam ba pare am na suite corn. waaw cee dem. ak lan ak olive ak. di si def soya oil bi. di nga si ak limon. waaw ak waaw. i am solo dégg ngeen tey li nga ne moom la mun a wax mu ne tey Chinese la ñoo toogal mu nekk nag reer boo xam ne xam naa du am diw ndax Chinese go mane ma ne dinañu def diw waaye dañoo seetaan li nga xam ne mooy lekki Chinese muy Chinese food bo xam ne spaghetti la am shrimps ak li nga xam ne mooy ganaar dal di am mixed vegetable ak li nga ne ni mooy jaba jambo ak ak liñong bi ak soya sauce bi ñu def ci li ne ni mooy sweet corn bi lu am solongo nee na ñu seetaan mu ndaw ci biir waañ bi wax naa leen ne ci bunta bi rek lañ emoon waaye dañoo dugga ba ci biir waañ bi ñu seet lana nekk ci biir waañ bi